ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yoonam tamit salaatu salaam gërëm waajur waaye tamit gërëm ki nga xam ne depuis 2012 ba tey euh, def na xëy ma nekk un cadre très transversal ndax secteur yi ma dugg yëpp du benn bu méngoo ak moromam à la limite à part casier euh, ak femme donc euh, mu njëkk ma jox casier tout petit jóge foofu FONGIP jóge foofu développement communautaire ba fii donc muy le président Macky Sall dama koy gërëm di ko remercier di ko sant ci liggéey bu rafet bi nga xam ne ànd nañ ci ak moom def ko pour Sénégalais yi madame la ministre ma di la féliciter di la ñaanal yàlla comme ni ma ko waxee ci français yàlla na yen bi diis waaye nga àttan ko yàlla na nga juboo ak say collaborateur yal na aussi nga jig réew mi réew mi jig la ñuy féliciter aussi président de la république Bassirou Diomaye Faye ak le premier ministre Ousmane Sonko man dama gëm ne Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar au-delà des appartenances Sénégal la ñu am moom la ñu bokk yére la boo xam ne fu ñu mën a dem ci àdduna bi moom la ñuy sol bu loolu weesoo nag suñu waxee ministère de la femme de la famille de l'équité et du développement communautaire mooy intitulé bi ma yoroon mën naa wax ne que lépp lu ñu wax ci ay réalisation dafa am ci vision bu mu jógee muy plan Sénégal émergent axe 2 capital humain protection sociale et développement durable ñu seetlu ne que ci kaw gi am na manquement yu bëri yu ci amoon xëy na sax nag ba tey waxuñu ne lépp mat na muy lu dem ci wàllum ndox ci wàllum courant ci wàllum yoon yu baax ci wàllum njàng xale yi ak désenclavement ak leneen ak leneen je pense que gouvernement bi def ci liggéey bu am solo ci sookul lu ñuy wax justice sociale ak équité sociale ak territoriale ku gis programme yi nuñ ko tegee muy PUDC di Promoville du PUMA di délégation à la solidarité ak structure yi nga xam ne ñoo ci nekk yépp fonds de solidarité ku nekk rek am na benn mission urgente boo xamante ne am nga ko te faw nga liggéeyal askan wi pour li nga xam ne loolooy jafe-jafe yi mën a am saafara su ma ñëwee ci wàllu femme je peu dire la même chose parce que bu ñu waxee ne que jigéen xale waaye tamit jigéen ba ci borom këram sax ndax tout c'est la famille foofu aussi liggéey bu am solo ci renforcement droit wu jigéen ñi duma wax sax loi sur la parité mais ñëpp xam nañ ni que jigéen bu amee borom kër bu dul nationalité sénégalaise léegi mën na jox borom këram xaw ma wala doomam nationalité. te loolu c'est des acquis phares yi nga xamante ne jigéenu Sénégal yëpp ñoo ànd xeex ko ba gouvernement bi gëm leen. ba assemblée nationale mën a voter ay loi yu toll noonu mënoon naa cee lim yeneen yoo xam ne madame la ministre xam nga ko ndax vous portez ces questions là euh, en tout cas au quotidien waaye li am solo ngeen xam ne surtout ñi nga xam ne ñoom ñooy les agents du ministère certainement y aura organisation réorganisation du ministère mais aussi ngeen xam ne mission boo leen amoon benn wala obligation de résultat boo leen amoon benn xam leen ne que war ngeen koo mën a am fukk parce que réew mi fa la tool nous avons une population très jeune besoins il y a 10 ans 20 ans ne sont plus les mêmes ça demande une réadaptation réadaptation nag buñ ko waxee mooy nga xool li ma doon def ci pàcc mi bu dee besoin bi fii la gën a bëri naa ko yokkee côté bee donc leneen li mooy ngeen jàppale madame le ministre xam naa ne sax di ngeen ko def ndax vous l'avez fait pour moi et vous l'avez fait également pour mes prédécesseurs te loolu aussi moom mooy lu ñuy wax euh, toujours un agent de l'État ou un commis de l'État posture boobu rek la mën a am c'est pas les hommes ou les personnes qui son importants mais lu ñuy incarner dans cette république là qui est important ba tax na madame la ministre wax nga ko léegi sama téléphone am nga ko donc euh, je suis à votre disposition ci lépp loo xamante ne rek nekk na xalaat boo xam ne war na mën a continuer ñongal liggéey bi nga xam ne dénk nañ la ko ñu la ciy ñaanal yàlla yal na la ci yàlla may ndam di gërëmaat tous les directeur directeurs yi parce que ñëpp xam nañ ma samay SMS fajar laa 4 heures du matin wala man awma heure <laughs> à tout moment su ma waree kii interpellé ni j'interpelle donc mu nekk moment yoo xam ne aussi baal leen ma àq baal naa leen yal nañu yàlla boole jéggal nous avons passé des bons moments même si c'est mais lu ñuy naan bu dee benn fan la sax am na solo à ma famille politique les femmes de l'Alliance pour la République yéen ñëpp gërëm naa leen sant naa leen nous sommes une famille te tey la ñuy gën a dund famille boobu ndax ki ñu boole muy le président Macky Sall loolu la ñu jàngal ma gërëmaat leen sant leen madame la ministre jërëjëf tous les collaborateurs ma famille ñëpp gërëm naa leen sant naa leen donc euh, li ci des comme ni ma la ko waxee rek euh, nous sommes là pour le Sénégal te dossier boo xalaat ne que war la ci mën a andi éclairage je le ferai wala même bu dul man sax les SG tout le monde est là et que vous avez une équipe très dévouée des technicien ñoo xam ne nag état moo leen ñor Mm-hmm. et puis ñoo xam ne man je connais des visages yoo xam ne depuis bi ma nekkee casier tout petit ils sont là donc il combien de ministres qui sont passés mm-hmm. et ils à servir l'État donc c'est important ñu ñu noter ko donc ma dina gannaaw ba ma nuyoo sama rakk sama xarit madame la ministre Thérèse Faye mi nga xam ni du tey laa dajeek moom du tey laa xamanteek moom te ba ma ko xamee ba tey mosuma gis comportement bu ma warul gis ci moom na ko koy seedeel waaye gannaaw ba ma santee yàlla sant samay wéjur gannaaw ba ma santee samay mbokk sant samay xarit sant sama jigéen ñi nga xam ne maag ñoom ñoo bokk nekk ci parti bi ñu bokk ma jiite ko ñuy sant samay doom maa ngi sant jataay bi ñi fi nekk ñépp waaye di sant yàlla ci euh, lii mu ma jagleel le président Bassirou Diomaye fay wóolu ma dénk ma lii nga xamante ni mooy ministère bi ñuy woowee famille et solidarité muy maanaam mbiri njaboot mbiri social mais mbiru jàppalante ak mbiru ndimbal muy ministère boo xam ni foog naa ni daanaka mooy Sénégal ndax ministère bi lépp luy politique social fii lañ koy jaarale kon daanaka bu ñuy wax famille ñu ngi wax Sénégal yépp ci biir mu nekk loo xam ni dañ koo jël ak ñaari loxo téye ko bu baax ndax laata ñuy dugg ci politique sax ci loolu lañu ñu mës a dox ci ay mbootaay yu ñu ma sa yore jiite naa lu ëpp fukki mbootaay yoo xam ni ci social rek lay dox waaye gën cee sawar ndax fii ma bokk tey am projet boo xam ne daf ko def projet boo xam ne projet social la d'abord damay am mbégte lool ànd ceeg ñoom ma ko ciy gërëm ci wóolute gi mais di gërëm aussi le PM monsieur Ousmane Sonko ci kóolute googu mu féddali moom tamit may profité ci occasion bi tam ndax dañoo jug ci korité jóge ci Pâques di ndokkeel sunu mbokk jullit yi ak sunu mbokk chrétien yi ci lii nga xam ne mooy euh, weer yi ñu génn ñu nekkoon ci koor di ñaan yàlla lépp luñ ci ñaan mu nangul ñu ko lépp luñ ko ci liggéey li mu nangul ñu ko di ñaan pour jàmmu Sénégal di ci ñaan li gën taxawaayu jigéen taxawaayu xale taxawaayu famille maa ngi jox euh, sargal sunu réew le peuple sénégalais ci maturité bi mu wone mat gi mu wone ci doxalin bi ñu def le 24 mars bii ñu génn wane maturité bu mat sëkk ci xool ki nga xam ni moo leen doy ñu fal ko muy le président Bassirou Diomaye jaaxaar Faye mais li ci gën a neex mooy ci jàmm ak salaam gi ñu ko defee donc képp ku ci contribuer na nga xam ne lii yaa ko moom te yàlla na yàlla fay di wax rek ni lii ñu ma dénk rëy na ci man lool te duma ci ménager benn effort duma ci sonn duma ci tay danaa ci ànd ak yéen ñii ma fekk ci tey jii ci ministère bi vous les directeurs régionaux nationaux départementaux incha allahu rabbi danaa ànd ak yéen liggéey sans relage pour ñu am résultat yi nga xamante ni moom la ñu yaakaar ci man. may ñaanal yàlla sunu président de la république ak premier ministre am ñu am ndam ñoom tam ci kóolute gi nga xam ne sénégalais yi am nañ ko ci ñoom kóolute goo xam ne yaakaar bi dafa rëy lool yàlla na ko suñu borom mottali ba ñu satisfaire leen Sénégal gis ci boppam doon réew mu naat. déw réew doon réew moo xamante ni jàmm moo fi sax xanaa di wax rek ci discoursu madame la ministre Thérèse Faye Diouf ne ku ko dégg xam ne non seulement maîtriser na li muy wax waaye gën nañ cee jàng ndax loolu la wane transversalité bi nga xam ne maanaam taxawaay position bi nga xam ne euh, ministère bi daf koo am ci gouvernement wu lumb ndax mooy ministère bi nga xam ni mooy xeex lool mooy xeex ñàkk mooy xeex xiif di xeex protection xale yi ndax suñu njaboot rek la ñu am mais ministère bi nga xamante ni aussi mooy xeex taxawaayu jigéen te loolu nekk na lu am solo nekk na loo xam ne ci réew mi lu ñu war a wax la mooy droit jigéen ñi nga xamante ni ñoo nekk ci réew mi te mu nekk loo xamante ni dañ ko war a defal promotion te incha allahu rabbi bokk na ci engagement yi ñu jël ñu gën a xoolaat gën a saytuwaat gën a defaraat taxawaayu jigéen ci côté droit ci biir réew mi ba mu mën a jouer rôle am na mu mate ba mu mat sëkk mais bëgguñu ko def ci yam fenn dañ ko bëgg a def ak décloisonnement boo xam ni acteur yépp dañ leen ciy boole du doon seulement ministère bi mais dina doon la société civile dina doon les politiques dina doon képp koo xamante ni am nga loo apporté ci ci ci liggéey boobu ñu boole la ci comme ça jigéen ñëpp gis ci seen bopp. di wax rek maa ngi félicité sama naataango suma rakk madame la ministère Faye Diouf ndax résultat yi mu am man par solidarité dama ci gis sama bopp ma koy félicité bu baax ci taxawaayam it. ci taxawaayam it ci lépp lu nga xamante ne promotion ak euh, ak yelleefu jigéen la ndax lu tey lañu mës a daje di liggéey ci loolu mais xam nañ ni lu bari liggéey nañ ko waaye xam nañ it lu bari des na ñu war koo indi dolli ko ci donc tey damay ñëw Rango tey dama fas yéenee ñëw topp sa ginnaaw foo teg tànk ma tegaat ko tànk ñu ànd liggéey liggéey boobu ba mu mat sëkk di wax rek ni waxtu wu nekk dafa am lu cay xew yàlla moo ne tey ngay jeexal fii yàlla moo ne tey lay tàmbali fii waaye bu mu tax mukk ba ñu am comportement bu ñu warul am bu mu tax mukkit ma soxla la te duma la mën a jariñoo mbaa yow mii nga soxla ma te duma mën a jariñoo nañu ànd liggéeyal Sénégal defi yi bari nañu lool te défi bu nekk enjeu la dañ ceeb fas yéene taxaw taxawaay bu mat sëkk te foofu maa ngi exhorter tout le personnel du ministère bu leen sonn bu leen tàyyi noppalu bi sax nañ ko wàññi gunge leen ma ci sama defi bii maa ngi leen tàllal loxo ngeen gunge ma ci lii ma engagé di li ci biir yëpp mënuma ko développer ci wolof mais xam leen lu mu jar danañu ko def mu ànd ak négation mooy bañ a sonn bañ a tàyyi mu ànd ak rigueur mooy téye ba mu baax bañ a bañ bañ a sàggane liñ ñu dénk mais dina ànd aussi ak ponctualité ku doon xëy 9 bëgg naa ngay xëy 8h bu ñu sonn ci lépp loo xam ne buñ ko waxee mu doon luy fragiliser suñu liggéey kon yokk naa ko ba huit heures et demie la ministre mi ngi mi ngi mi ngi leen di defal plaidoyer nee na ministère de la femme la dañuy nampal ak yooyu dëgg la waaw loolu moom ak di defal ndékki yi ah am na alaaji yoo xam ne moom balaa ngay génn foog nga defar ndékki mais sant yàlla loolu yëpp nañuy gën a teel a yeewu rek di fexe ba yegg si à l'heure mais am nag sujet boo xam ni ci laa bëgg vraiment tëj ak yéen muy euh, l'obligation de réserve wax bu mën a froissé la waaye wax bu dëggu la te yàlla dëgg la bëgg nañu ànd te protéger lépp lu ñuy def ngeen protéger ma ma protéger leen ñu ànd protéger suñu ministère. ba mu doon ministère bi nga xam ne ndax loolu mooy sama défi loolu laa wax sama PM loolu laa wax sama président de la République je veux que ce soit le ministère pilote ci valeur ak euh, euh, vertu yi nga xamante ne ni moom laa wax. mais mu doon ministère pilote ci lépp li nga xam ni mooy organisation ak réorganisation du travail incha allahu rabbi waaw di wax rek ni ci programme yi bari nañu PUDC PUMA ak yeneen programme yi nga xamante ni ministère bi moo ko war a jël en charge na ngeen xam ne xeebuma ci kenn ci yéen lu ma ci war a xam lu ma ci war a taxawee tàllal naa leen loxo pour que ñu ànd liggéey li nga xamante ni ci la Sénégalais yépp di gis seen bopp incha allah rabbi maa ngi gërëm ñëpp di leen wax ni le travail commence lundi incha allahu rabbi ñu tàmbali liggéey bi jërë ngeen jëf.